asalaamaaleykum waa diaspora bi ay cë dañoo faral la wax naan consommer local mooy développer ab dëkk léegi nag mu ngi noonu consommer local par force jaare ko si dugub dugub gi nga xamante ne Sénégal lañ kaa béyee mu yàgg lool moo tax beñe bi nga xamante ne Ousmane Sonko tudd na ko mu barkeel ah man mbay Mbaye ndaw de ak équipe bi mën nañu di jaay beñe ay ginaar gi moom xamul heure ba moo saf ba mu dul saf moom yoonam nekk si saa yoo ko rek voilà yéen waa diaspora bi def leen seen commande bañ a dugub diaspora bi rek la ñuy jaay ne jaayuñu Sénégal def leen seen commande ñu saafal leen paquetal leen bu mu rafet ñu yónnee leen GP GP yaa ngi fi moo xam faa nekk si Europe bi Espagne Italie France ba si États-Unis ba si Chine sax benn bëgg waaw kay bañ yaa ngi fii ñu sape leen ba mu rafet mu neex lool paquetal leen ko su ko defee bu yeggee ngeen def ko seen frigidaire saa yu ngeen sentiree ngeen génnee si mi génnee tàngal si micro-ondes bi après à volonté mën ngeen ko añee bu ngeen xiifee añ ngeen lekk ko ndekki reer consommons local consommons local la nekk rek ak fi kay yàlla la jaare ay cawaay sama gars yi numéro baa ngi noonu nag si suuf am na Wave am na WhatsApp message leen ma ngeen wax ma seen commande